Ablaye Wade daanu na dootul dellu si delloowuñu parti bi ñun waxtaan leen seet ku leen doy ngeen tànn ka man man Touré taxaw na man Touré taxaw na.
léegi nga nekk fan.
léegi maa ngi ci sama bopp maa ngi nii ndar am naa ay xarit ci dëkk bi am naa xarit ci réew mi am naa ay xarit ci département bi maa ngi waxtaan ak ñëpp te it fas naa yéene bu soobee yàlla bu jotee lu ñuy yëngatu ci dëkk bi fii di ndar pour mën a seet nu ñu doxale dëkk bi danaa ca bokk kàttanu yàlla ak samay xarit ak samay àndandoo.
tey ñi ñi nga xam ne ñoo xëccoo mairie bi fii ci Ndar. yow ban jàngat nga am ci ñoom.
waaw ñu ci bëree xam naa ne dañ ci dañuy xëccoo parce que dañ ko bëgg te dëgg la ci ñoom am na ci ñoo xam ne dañ ciy xëccoo rek nii pour ñu dégg dégg yokk seen tur rek la ak yokk seen xame ak dégg nga ma wala def ko buntu waxaale ak nguur gi ndax am na ci ñoo xam ne fokk ñu waxaale pour mën a def ndax wax dëgg yàlla xajuñu sax ci opposition ndax ku yor alal dégg nga maam ak ay commerce ki ay suuti yoo xam ne faw ngay fay ay impôt ki ay bor ànd nguur moo gën di ko kontaan waaw ndax boo boo leen kontaanee dañ lay faral di yebal service yi nga xam ne dañuy wàññi sa doole ak sa alal.
Bamba Dièye mën na nekkaat maire.
Bamba Dièye mën na nekk.
ah maire moom fi toll nii.
ah moom daal moom moom sañ na kaa wut waaye moom ci boppam war na xam ni li muy wut lu koy jafele ci ndar gi ndax yorul parti bu ko mën jox te ña mu àndaloon mere nañ ko ña mu àndaloon ba ñu fal ko maire dootuñu àndaat ak moom di ko fal maire li may wax ci dëkk bi laa koy waxee waa dëkk baa ngi may dégg te xam nañ li may wax man waaw man du ma waxantu.
kon léegi gis nga moom liggéey baaxul baaxul ci dëkk bi.
mais Bamba lan la fi liggéey dem di abbi ay oto xaw ma jëli ay ay kaar fële lu Toulouse mais yow mii farasi la boo nekkoon maire Ndar nu may Toulouse may la ko maanaam ça n'a rien à voir avec la tête du maire nekkal maire Ndar rek.
kon moom terme réalisation yi fi réalisé wu dara.
mais lan la fi réalisé Bamba lan la fi doon nañu wax dëgg ay oto yu mu fi indi ay oto ambulance.
ba pare dem wëlbatiku dem tag mairie bi yëpp di ko liggéey naan daf ci def ay bureau yu bees mairie bi bokk na ci bâtiment centraux yi nga xam ne ci territoire de patrimoine bi Sénégal signé à l'assemblée générale de l'UNESCO avec l'ambassadeur du Sénégal aux Nations Unies ñu jël ndar daal ni léegi moomeelu àddina la territoire bi l'île de Saint-Louis ak la berge de gox de de Guet-Ndar jëm goxu mbaaj ak berge bi jëm teen jigéen nii corniche bu bëgg a yes ci boobu boobu fii booru Pikine gi mais c'est le territoire du patrimoine kenn waratu caa laal dara te amul autorisation wu Nations Unies UNESCO te état du Sénégal rek moo mën def boobu demande pas le maire lan moo ko ciy xaar jëf ji mu jëf.
mais fi mu nekk jëf la boo xam ne fi mu nekk buñ ci jógee waa patrimoine ni ñu nga sax daal di ni déclassé nañu ndar ndax vraiment ndagam meeru ndar moom moo ñàkk a xam bay ñëw fekk bâtiment bu ñu classé patrimoine mu di ko toj di ko tabaxaat mu laaj la loo koy doy mu naan la ma ci yokk ay bureau dama koy yenn yenn yenn kenn xamul lu mu doon sax waaw yéen ñu tuure ne yor mairie bu ndar la.
du yeneen cuune en fait cuune bu dee bu dee cuune mooy ko xamul Bamba ñàkkul xam Bamba dafa laajtewul te dafa doy loo boppam dafa dem naxanteeg gaañi ba falu daal di bëgg wéet ak mbir yi nag yoreel ko boppam affaire affaire affaire naxe yooyu du sotti chance bi demoon di yor.
waaw kooku nawetaan rek lay def waaw Brahima chance am ci mairie.
déet am na ñoo xam ni en deux mille en quatre-vingt-seize candidat bokkuñu fi woon en 2002 ñëw nañu def ànd dekkal ndar xaw ma ñàkk en en 2009 ñëw nañu fi def seen liste tappale ñàkk oh alors bu ñu toogee en 2012 naan la man sama turu bopp nit sa turu bopp man Amou Touré bu ma taxawee ci ndar naan man Amou Touré fa leen ma meer ça n'a pas de sens mais ëpp mu fi nit juddu sama ndey xëy na ndey ju baax la woon sama baay maa ngi koy sant di ko gërëm mais ku nekk bu la sa ndey ak sa baay doyul ku lay doy sa juddu bu la doyul lu lay doy say bokk buñ la doyul ku lay doy mais affaire bi du affaire u jiw affaire u dëkk bi la lan lanu nammal dëkk bi ak ci sunu xam-xam ak sunu taxawaay ak sunuy pexe lan lanu ci man ak ku nu koy àndal waaye ñëw rek fal ma daal di yor sa oto rek dégg nga maam daal di def sa benn cortège rek ñu maam benn woykat bu lay woyal naan la diw xaw ma sàmbatu yooyu affaire yooyu yooyu yooyu.
mais wax nga léegi ci ma Mansour te moom ñu naan ñu ngi ruum naan yooyu yooyu amulul njëriñ kenn Mansour te waa ndar nag ndar dëkku cosaan la entre nous soyez sérieux di wër ci mbedd yi di sànni ay billets yooyu wala di taxawaalu dégg nga maam di forme kumbal yu sew yooyu bokkul ak bésu wote te waa ndar nag dëkku cosaan lañu te it ay fii dëkk la bu yàgg te nit ñi nag bu bu rumbalement bi teeree ba dal nit ñi dañuy xelu nag dañuy delloo sa xel yi waaw kon nag ku yebu def ndànk waaw yaa ngi leen junj léegi sànq ci nasaraan Mansour euh, moom ñuy wax naan ni euh, day wut ku mairie na ban jàngat nga am ci boobu waaw non ma Mansour daal li ma gis ci moom ndax ñënu ma ko wax dëgg yàlla maa ngi ko xam ci premier tour élection présidentielle yi du may wër école yi laa ko fekk biir école Ndiolofène mu ñu ni moo fi toogal APR ñun nuyoon te ma ko ah bon yow yaay yow yaay diw mu ne waaw may ko dama naan dégg ko rek oh mooy tey gis naa sa kanam waaye yéen yéen nag moom yéen sama rak yéen doy ngeen waar rek ku leen bàyyi ngeen di xëccoog ñun man ah dañuy xëccoo yéen kañ bon noonu laa ko xamee bon boobu depuis loolu ba léegi fu ma fekk wax dëgg yàlla dana taxaw nuyu ma bu nekkoon ci oto sax day wax chauffeur am freiné mu freiné mu wàcc ñu nuyu ma te kilifa la kon nag yal na ko yàlla teral ni mu teral nit ñi ak woyof gi mu woyof ak ni mu yëge nit ñi te dégg nañ noonu muy def ak man noonu lay def ak ñëpp it loolu lañ ma wax loolu lañ ma wax kon nit ku baax la waaw nit ku baax la waaye nag ci wàllu politique moom ak parti bi ma gis ci ndar jëmuñu fenn waaw moom mi ma gis ak ñii ko daal ak nii nuy doxale jëmuñu fenn waaw dañuy jaabante rek semaine bu nekk dégg naa ñu ngi ci ndar di ñëw ak di dugg ak di génn mais ñi ko wër dañu dañu amul njëriñ amaluñ ko njëriñ amaluñ njëriñ dëkk bi amaluñ njëriñ seen bopp waaw dañu yaakaar ci moom wala mu dellu Dakar boole leen ak mag yi pour ñu fal leen dara moo tax ñu topp ko rek nguuraan ndiiraan ko noonu fu mu dugg ñu dugg fa fu mu génn ñu génn fa taxawaalu nangam nangam Macky Sall ba jàmm di jàmm te seytaane dugg ci biir famille boobu muy famille libérale Macky Sall na xam ne tey moog Idrissa Seck rek a fi nekk di ko xëccoo Ablaye Wade pare na lépp lu mu def day rafetal rek ak di jéem a ne de- de nga taxaw taxawaayu démbam nga waaye taxawaay googu mënatul nekk démb du tey démb yi démb tey lay tey li ëllëg ay ëllëg Ablaye Wade pare na ci loolu Macky nag moo fi nekk moo aye waaye Idrissa nee na mayit dama bëgg waaw mais ñooñu fi mu nekk ñoom ñoo taxaw ci ay xefam waaw mais Macky nag aussi moo leen mënul bàyyi parce que Macky fokk mu jëfandiku ci xam-xamu Moustapha Niasse ci gis-gisu Moustapha Niasse ci xam gu Moustapha Niasse xam-xam bu wér nguur geeg Afrique ak àddina beeg bunt yi mu am ci àddina dafa nekk nit koo xam ni kenn du ko am di ko sànni bon Tanor la même chose Tanor ca Senghor ba ci Abdou Diouf daanaka moo doon ministre des services et affaires présidentielles donc ñoo ñooñu duñu mënte mëstee wala di dawal rek la ñu xam waaw léegi te moom euh, Macky bi mu faloo ak léegi yàlla mayagu ko bon ci ñi ko wër ñoo xam ne dégg nga mam am nañu boobu jaar-jaar wala boobu njàng wala boobu man-man du gaañi ma fi gis ñëpp de c'est pas vrai du duñu moom quoi mais waa parti bi nee nañu nangu ñu Moustapha Niasse nekk assemblée sénégalaise.
mais mais mais buñ ko buñ ko nanguwul kon luñ ko doon fale buñ ñu sonal ñoom it ba ñu xamee ne duñ ko nangu waruñu ko woon fal et puis naka la ñuy mën nekkee naan assemblée ñoom ci réew boo xam dañ naan réewu séparation de pouvoir la Macky moom fal nañ ko président de la République nañ leen bàyyi ak assemblée waaye ñoom député yooyu ñoo ñëw fii naan Moustapha Cissé Lo taxaw na fi ni damaa bëgg mu digg ñu wokk dama loxoom député yi ñoom ñoom Moustapha Diakhaté bii wax tey ñëw fii taxaw naan ñu eh bien voilà président Macky nee nañu fal lu ci le lu Moustapha Niasse mooy candidat wu waaw comme ñoom ñoo ko nangul Macky kañ bu ñu fi dellu si nag di sonalaat nit ñi tey nañ ko ko nangul rek.
dañ ne mandat am dañ ko war a renouveler ñaar ñaar ñaar fan ñaar.
waaye yow mandat bi dañ ko waroon renouveler at mu nekk moom la ñu daaneele woon mooy loi Sada Ndiaye daloon na fi dégg nga maam Habib Thiam daloon na fi euh, kii Sow Daouda Sow ci assemblée nationale kon wax jooju du gan ci assemblée waaye ba ñu PDS ñëwee bi ñu bëggee daaneel Macky Sada Ndiaye ni jaayam lañ jëli ñëw Ablaye Wade jël ko nga xam ni c'est politique léeg-léeg lu salte la ñuy def lu bon Sada Ndiaye mii ni jaay Macky Sall moo ñëw wote loi boobu ñu génne Macky kon Macky ba mu dellu see comme politique la il faut que nit ñi di teey Macky bu dee dëgg rek la doon dox la ko daaneeloon bu dellu see waroon na ko dàq waaye bu ñëwee ni tekk bàyyi ko fi kon ngeen xam ne affaire bi mbir a ngi ci biir waaw ndax dafay bañ Moussa Ba Niass gal gal gal waaw moo la gën a too xam ni loi bi baaxul waaye da ko fi bàyyi mu nekk team Moustapha Niass pour que à tout moment dégg nga maam Moustapha Niass bañ moom it dugg ci loo xam ne waru cee dugg yu mel noonu rek la quoi diggante waaw.
diggante Alioune Badara Cissé ak Macky mais kooku moom diggante bu ñu yàq la waaw diggante bu ñu yàq la waaye it sàggante ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga ci waaye surtout Alioune Badara man sama xarit la sama doomu ndaya sama rakk la sama wëllëre la moo war a xam ni fi mu daan àndal ak ku mu mënoon te doon tey ji mooy kilifa yi réew mi kilifa yi réew nag dafa am ak ak cër bu ko wër da ko ko jox ba mu mat sëkk leneen looy sëkk ak moom nga sëkk ak moom te yoonu kenn bañ caa ne waaye bul nangu mu mel ni dafa am ñu lay teg di won nit ñi ni yow yaay wuju kilifa gi wala yaay ki ka sañ wax lu ko kenn dul wax yow yaay sañ di def lu kenn dul def bu boobaa dañuy mel ni ku lay tëkkaleeg moom te bu boobaa nag lu lu yàqu ak luy tooy ci yow lay jóge waaw donc léegi maa ngi leen yàlla mooy ñu gisewaat àndaat defarwaat parce que nag seen ànd yàgg na te àndu njëriñ rek la woon kon nag yàlla leen yàlla jubale te ku nekk xamaat sa bopp rek Macky warul mën dem bàyyi Alioune Badara gannaaw Alioune Badara it keneen ku mu àndali te àndul ak Macky dana ko yàq man daal loolu laa ci gis